الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور Ali Imran TV dellusiwaat nañu ak suñuy mbokk ñu ñuy topp ci waxtaanu suba si fii ci Ali Imran TV tey di àjjuma mu tombek fukki fan ak juróom ci weeru jumaada ula te mooy weeru rakkaati gammo moo tombe gàdday yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mille anaa di fàttali mbokk yi rekk des na suñu diggante ak weeru weer bu màgg bi cent cinq jours cinq jours moo des suñu diggante ak weeru koor ñu ñaan yàlla suñu borom weer bu màgg boobee buy ñëw yal nañu fi fekk buy dem yal nañu fi bàyyi waaye lépp lañ fa jaamu yàlla yal na ko buur yàlla nangu te mu fulal ñu ko amin ya rabbal alamin mbokk yi tey di àjjuma tombeeg fukki fan ak juróom ci weeru rakkaati gàmmu ñaan ba ñu am ci almunaax ba ñuy wéttalanteeg yéen fii ci Ali Imran TV ci ndimbalu technicien yi ñu àndal ci wàllum xarala gi ñu di leen ñaanal yàlla yal na leen yàlla sàmmate aar leen amin ñaan bi mooy yow jullit bi day baril la ngay ñaan sa borom di ko ne allahumma akthir maali wa waladi wa barik li fi ma aataytani la ñaan bi di tekki mooy yow jullit bi del ñaan sa borom den ko allahumma buur yàlla maa lay ñaan akthir maali yàlla nga baril sama koom yàlla nga ma may koom ju bari rawatina alal mu doon lu bari wa waladi yàlla nga ma baril samay doom moo xam doom yu góor wala doom yu jigéen samay njaboot yal nañu sakkan wa barik lii nga ma barkel fii ma aataytani lépp li ma jox yàlla nga ma defal mu doon lu barkel borom bi ñu nit lay ñaan yàlla nga ñu may koom ju bëri nga may ñu njaboot yu bari waaye nga barkel ñu lépp loo xamante ne may nga ñu ko amin ya rabbal alamin mbokk yal na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot xadis ba ñëw ci suufu ñaan bi mooy an abi hurayrata radiallahu anhu jëlee nañ xadis bi ci saxaabi bu mag ki ñu naan abi hurayrata yal na ko buur yàlla gërëm anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal naka suñ yenent bi di ar rasulul mustapha alayhi wa sallam man iqtasala yowma aljumcati gusla aljanabati képp ku xëy bis ajjuma bis ni gi nga daal di sangu sangu farata nga sangu sangu janaaba summa raaha fa kaannama qarraba badanatin nga daldi séq ab jéego daldi dem ci jullikaay ba yonent neena nee ngi mel ni yow mi saraxe gëlëm waman raaha fi saatin saaniyatin képp ku séq ab jeego dem ci ñaareelu waxtu ba nga dem juma ci ñaareelu waxtu bi yonent bi ne fa ka annama daa mel ni yow mi génne nag sarax mu teg ci ne waman raha fi saatin thalisatin képp ku séq ab jéego dem ci jàkka ja ñetteelu waxtu wa yonent bi ne fa ka annama mel ni danga génne sarax ñaari kuy yu sax béjjin yonentu bi ne waman raha fi saatin rabiatin képp ku seq ab jéego dem ci jàkka ji ci ñeenteelu waxtu wa yonentu bi ne fa ka annama qarraba dajajatan mel ni ni ab seq nga génne sarax ginaar mu teg ci ne waman raha fi saatin xamisatin képp ku séq ab jéego dem ci jàkka ja ci juróomeelu waxtu wa yonent bi ne fa ka annama qarraba mel na ni yaa sarax tabletu nen fa ida xaraja al imam yonent bi ne bu imam génnee nag waajal pour yéeg ci kaw minbar bi nee na al malaikatu malaaka yi dañuy daldi teewu teew ñoom it ñu teewlu ànd ak mbooloo ba yastamiuuna dikar ñu daal déglu la nga xamante ni mooy xutba la nga xamante ni moom la imaam di joxe nit ñi ngir mu fàttali leen seeni borom wala mu fàttali leen lenn seeni mbiru diine muttafaqun alayhi xadis bi dañ ciy dëppoo Buxaari ak Muslim mbokk yi yéen mi ànd ak Ali Imran TV ci waxtaanu suba si suñu yonent bi alayhi salaatu wa salaam moo ñuy baaxee ngëneel ba bésu arjuma am ngëneel ba bésu arjuma làmboo ngëneel ba nekk ci bésu arjuma suñu yonent bi xamal nañu ko ci beneen xadis ne samdi la yàlla jagleel xeet ñuy naan al yahud mu jagleel al nasaara bés bi nga xamante ne mooy dimanche buñ ko naree tënk ci wolof mooy gaaw la yàlla jagleel yahuudi mu jagleel dibir nasaraani waaye mu denc yowmul jumaa mu réeral leen ko ci bés yi ba yonentu bi ñëwee sallallahu alayhi sallam mu daldi ko ko génnal jox ko ngénneel ba nekk ci bésu ajjuma ngir yenent bi sallallahu alayhi wa ak xeetam ñu war a mën ñu war a mën a taataan ñu war a mën a bénéficié wu njariñ ba nekk ci yowmul jumaa ba tax na njariñ boobu noonu la suñu yenent bi di ñu baaxee ci xadis bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ku xëy bés ni ki tey tey di ajjuma nga xëy daal di sangu sangu janaaba sëq ab jéego dox dem ci jàkka ja nee na mel na ni yaa génne gëlëm sarax loolu di njëlbeenu waxtu wa nee na képp ku sëq ab jéego nag dem ci jàkka ja bésu ajjuma ci ñaareelu waxtu wa daa mel ni yaa génne nag sarax waaye nee na képp ku sëq ab jéego ci ñetteelu waxtu ba dem ci jàkka ja di bésu ajjuma dafa mel ni yaa génne ñaari kuy yu mag ngir nga def ko sarax waaye nee na képp ku sëq ab jéego ci ñeneenteelu waxtu wa dem ci jàkka ja daa mel ni yaa génne sëq ginaar yi sarax waaye ku sëq ab jéego ci juróomeelu waxtu wa daal dem ci jàkka ja nee na dafa mel ni ki génne ay nen sarax waaye képp koo xamante ne nag génn nga nen sarax bi léegi baax na yonent bi daldi ñu tegal ne ida xaraja imam bu imam génni ci waxtu ba muy waaji yéeg ci minbar bi nag xadaratil malaikatu malaka yi dañuy teew ñoom it yastamiuuna ñu ànd mbooloo bi daldi di déglu la nga xamante ne moom la imam di fàttali mbooloo bi ñoom it ñu daal di déglu li nga xamante ne mooy xutba bi mbokk yi Ali Imran TV tey lii lañ leen andil ngir ñu nar ko fas yéene fàttalanteeg mbokk yi ci waxtaanu suba si ñu ñaan yàlla suñu borom jalla wa ala mu defal ñu dégg topp ñu di ñu di ko ñaan ne ko allahumma akthir maali wa waladi wa barik lii fi aataytani amin ya rabbal alamin بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم اللهم احفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم آمنا في أوطاننا واصلح أئمتنا وولاة أمورنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فكم سجدت لك جباهنا وذلت لك رقابنا يا